Euh, maa ngi nuyu ñëpp ci jour ayit bi euh, di baalu ñëpp ak di leen baal ak di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu jaamu yàlla te fulal ñu ko ci weeru koor gi ñu génn euh, ñaan ñu aussi ñu ñaan aussi mu nangu suñu ñaan ci bësu ayit bi lépp li nga xam ne ñaan nañ ko fii ci département bi ak ci région bi ak ci Sénégal ak ci àdduna gi yëpp borom bi nangul ñu ko Euh, donc c' est véritablement euh, un honneur euh, am chance ñuy interviewé tey à travers nos amis de Rio Plus. donc ñu si am mbégte parce que je pense que on a eu à collaborer dans le passé et je pense que yéen seen liggéey ñu ngi koy rafetlu yéen a ngi koy def avec beaucoup de beaucoup donc man je suis chez ma grand comme d'habitude man. Euh, fii jóge naa fi lu yàgg mais fii laa màggee j'ai fait tout fumer chaque fête aussi su ma julee ba pare parce que si jumaa ji laa jullee bu Arafat parce que fii laa yàgg di jullee euh, malgré que maa ngi duudu baas damay ñëw toujours su ma jullee ma jaar sama kër maam jaar si aussi si koñ bi euh, xarit yee ko wóllëre yi dëkkandoo yi ziar leen